bisimila dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a ci yéenekaay Walfadjri quotidien la ñu koy dooree mais xëy dikkaat ci attaque yi nga xam te ni ilimaani jëriñ ji Ousmane Sonko mu koy def ñenn ñu nekk ci biir kujje gi Walfadjri ne ñu ki nga xam te moom moo di njiital gouvernement bopp Sénégal di Ousmane Sonko dafa mel ni yërey ku nekk ci kujje politique gi la sol jamono ji la Sonko toujours dans la peau d'un opposant ki nga xam te ni moom moo di Mamadou Sy Albert xam-xamam màcc ci wàllum politique di wax ci biir Walfadjri quotidien mu ne nag c'est une grosse erreur loolee nga xam te ni noonee la njiital gouvernement banque bu Sénégal di Ousmane Sonko di doxale daal daanaka ak njuumtele kii di Alioune nag moom mooy la nga xam te xam ne na ko mooy am na nag réeroo goo xam te am na ci diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax nag la nga xam te ni moom moo di doxalin gi ah, daanaka ku ci nekk xamul fa nga war a tooge ndax ki nga xam te moom moo di Ousmane Sonko daanaka moom mooy taxawee taxawaayu njiitu réew ci biir Sénégal noonee la ko Alioune Tine xam ne ci biir journal bii di Walf Fadjri quotidien la Dakar waa yéenikaay moom itamit daal di xëy dikkaat ci li nga xam te moom moo ñeel faatu waaye mu ne ka nga xam te ni moom la ñu njort ni moo def googule kay ñaawteef faata dafa am ay kàddu yoo xam te yëkkati na ko jagleel ko ko gannaaw bu mu ñëwee ca di sàkku ci biir journal di la jafe-jafe yi nga xam kër gii di Air Sénégal daal dina koy am mu ne une compagnie en zone de turbulence compagnie bi nga xam moom moo di Air Sénégal daal yoo xamante ni daal dinañu koy mujj daal di annulé rawatina nag ne nag koy dakkal fii ak jéeg bi jamono ndax nag jafe-jafe yi nga xam kër gii di Air Sénégal am na ko l'éveil quotidien xëy dikkaat ci li nga xam te moo màggal Touba ak la nga xam te moom moo nekk taxawaayu euh, kër yi nga xam te ñooy yëngatu ci wàllu jokkalante bi mu ne nag euh, kër gi nga xam moom moo di firi daal moom moo euh, ba ñu jagleeloon ga taxu koo na journal bi di l'éveil quotidien jàpp ni firi daal moom gën a am doole ci li nga xam moom moo di màggal googu lee l'éveil quotidien dikkaan yi tamit ci lu ñeel wàllum relance bu parti socialiste nga xam te moom moo di Abdoulaye Wilane la nga xam te bëgg na ko jamono jëlee nag mooy ñu gën a booloo gën a taxaw temm ngir a ba parti boobu nga xam te moom moo di parti socialiste dundaat ci biir Sénégal waaye tamit fexe ba la nga xam te moom moo nekk seen mébét muy dem na dagaan baatu askan bi ngir nekkaat ci nguur gi ko anto noonu la ki nga xam te moom moo di Aziz Dabala mu ne le présumé meurtrier ki nga moom la ñu jàpp moo def ñaawteef googule daal nga xam wax na ko kanamu enquête kat yi daal mooy ñi nga xam te moom la jël seen bakkan daal ñoom dafa am dundin goo xamante ñu ko doon dund goo xam te baaxul ci société sénégalaise waaye tamit am loo xam te dañu ko ko proposé woon mu lu jëm ci wàllum borom ñaari turi gannaaw ba nga xam te ñëw na foofee ngir sàkkoo ci ñoom ay koppar lu ni mel nag moo tax moom mu daal di mer ba futtu daal di jël seen bakkan noonee ko xamal journal bi di l'éveil quotidien las quotidien électrique boobu noonu daal gën na wone dooleem ci mbir moomu leen noonu la ko journal bi nga xam ni moo di laas mu njëkk ne xam te ñenn lañ ci kilifa yi nga xam te ñoo yëngatu ci wàllum énergie li nga xam moom moo di secteur privé national bi le point acteur dikkaat na li nga xam te moo di coowal lettre ba nga xam te gisoon nañ ko ci biir màggalu ko Touba bi ana moo ko bind ak lan moo tax ki nga xam te moo di Serigne Bassirou Abdou Khadre la nga xam xam ne ko ci biir journal bi daal mooy lettre boobee nga xam te nañ ko kilifa yi nguur gi di sa ko ngir nag ñu jël yenn ci gan yi daal di leen dalal foofee nga xam te moom moo di ci hôtel King Fahd Palace nga xam te moo yor kàddu ka na moom ko waaye tamit bàyyi ko wul ci ki nga xam te moom moo di xalif général des Mourides mu ne nag lépp loo xam te sàkko ko ci nguurug Sénégal daanaka nguur gi matal na ko mu mat sëkk ki nga xam te moo di Serigne Cheikhouna Mbacké moom nag mu ne day la nga xam moom moo tax mu daal di bind boobu lépp lettre sàkko ci autorisation waaye tamit mu ne na nga xam te noonu la doxale mooy nañu daan doxalee at mu jekk ndax nag moom daf ko def ci turu comité d'organisation boobule le refus de présidence qui invoque la rationalisation des dépenses ki nga xam te ñoom ñoo di nguurug Sénégal la nga xam te wax la nañ ko ci li tax ñu daal di bañ a jëfe boobu lépp lettre mooy nag dañoo nekk rek jamono jile joo xam te ni dañu am ay jafe-jafe ci wàllum koom enquête quotidien xëy na di kat ci faatuk Aziz Dabala mu ne nag li nga xam te moom moo di l'enquête ba daal mu ngay wéy jamono ñi nga xam te daal ñoom la ñu jàpp ne ay suspect lañ jamono jile bokk ak ki te moom moo di Nabou Leye nekk nit koo xamante ne jege ñaale Aziz Dabala la lool waaye tamit ay ñeneen ñoo xamante ni dégg nañ leen loxo te ñoom nag seen téléphone ñoo leen sànq ci mbir moomu ba tax nag ñi nga xam te ñoom ñoo di woy l'enquêtekat yi daal daal di leen jàpp ki nga xam te moo di yi nga xam te yëkkati na ko jagleel ko ñii di woy l'enquêtekat yi dikkaat ci la nga xam te moom moo tax mu fàtte ñooñu le ca la ñu jàppandigum doon nag ay kàddu yu yéeme yéeme yu doy waar lool noonu la ko enquête quotidien daal di xam ne journal bi tamit dikkaat na ci li xam te moo ñeel wàllu màggalu Tuubaa ak la nga xam te moom moo di taxawaayu nguur gi mu ne une collaboration sous les di màggal nguurug Sénégal taxaw na ba ni a ci biir màggalu ko ren gi lee ngir nag gunge ñi nga xam te ñoom la nga xam te moo nekk digle Serigne Touba fàttali nañ ko ñi nga xam te ñoom ñoo di askanu Sénégal waaye tamit ñi nga xam te ñoo di kilifa yi ya ñuy jiite noonee la ko journal bi di Vox Populi daal di xam ne yëkkati looy kàddu nga xam te ni kii di Abdou Khadre mi yor kàddu xalif général des Mourides moom moo ko yëkkati jagleel ko askanu Sénégal ba nga xam te ñu ngay amal cérémonie officielle bopp googuleeg màggal vox populi di karne tamit ci li nga xam te moo nekk Fatou Aziz Dabala moom bés ci enquête boobule mu ne nag ay mbir la yoo xamante kenn xaarandikoo woon ndax nag ki nga xam te di le présumé meurtrier arrêté à Touba foofee nga xam moom moo di ca Touba fa la ko jàppee ka nga xam moom moo di nijaayam nag màggali ci Touba ba tax na nag wa ngay xam te moo di nijaay ji mënatul woon a téye boobu lépp secret dem ci ñi nga xam te ñoom ñoo di way takk der yi daal di leen koy wax ba nga xam te nag ñoom daal dinañuy dem fekk ki nga xam te moom moo di Mamadou Lamine Diaw mi nga xam te njort nañ moo def jooju lay ñawte fekk ko foofee ci dëkk bu sell ba teg ko loxo ba ni ñu koy jële andi ko ci Ndakaaru ngir nag daal di woyal li nga xam te moom moo di l'enquête bi l'indépendant yéeni kaay nañu nag lu ñeel wàllum cent trentième édition di màggal de Touba la gloire de Bamba vivifiée waaye tamit mu ñëwaat ci li nga xam te moo ñeel wàllum migration

business juteux autour du IBEF la recommandation de sur les safar la nga xam ni kii di kilifa gu tedd gi yëkkati na ko nag wax le ko mooy ay digle yoo xam te na wàllum safar gi waaye tamit na nga xam te nana la askan bi di defeel wàllum koom ci li nga xam te moo nekk jaayum nag ay gi ak la nga xam te moom moo di ay xéewale ki berne léeg-léeg lépp journal bi l'observateur yéeni kaay dikkaat na waaye journal bi tamit dikkaat na ci coowal Aziz Dabala ak la nga xam moom moo di détail yi nga xam te mënees na lettre ki nga xam te moom moo di Nabou Leye di xarit ci Aziz Dabala la nga xam te wax na ko enquêteurs yi daal journal bi l'observateur yéeni kaay dikkaat na ci mu ne nag coow li nga xam te doxoon na ci diggante Aziz ak ki nga xam te moom moo ak El Hadji Mamadou Diaw mi nga xam te njort nañ ñi moom moo def jooju lay jiyee ñoom nag dañu xuloo woon ba ne sipp ci téléphone waaye tamit la nga xam te moo ñeel wàllum orientation sexuelle la menace de l'expédition punitive mu ne nag le film de l'arrestation de six personnes maanaam juróom benn nit ñi nga jàpp nañ leen jàpp ni ñoom dañu bokk ci moom li mbir rawatina ki nga xam te moo di Assane ak Ousseynou Diawa ñu ñii ñëpp ñu jàpp ne taqe li nga xam te moom moo nekk faatuk Aziz Dabala ka nga xam te jàpp nañ ni moom moo di cerveau bi maanaam mu ki nga xam te moom moo jiite lépp di Mamadou Lamine Diawa moom nag mu nekk ko xamante ni moom nag mu nga fekk baax fa nga xam te moom moo di ca ginnaaw raay waaye tamit ak démbama diis lool ci lu ñeel wàllum ñaawteef noonu la ko journal bii di l'observateur yéenikaay daal di xamte le quotidien yéenikaay moom nag ci jafe-jafe yi nga xamte ni moo ñeel lu ko Touba ci la daal di dikkaat moderne mu ne léeb moo di màggal journalub ma jambal jaan bi ne ñu grand ferveur dans un contexte hivernal mu ne nag lu ñeel wàllum hébergement yi gan yi nga xam te ñoo ñëwoon ci màggal gi mu ne loolee indi na ay jafe te fukki nit ak ñoom ñoo daal di faatu ci li nga xam te moom moo di màggalu ko Tuubaa gu ren gi libération yéeni kaay moom itamit xëy na di kaat ci li nga xam te moom moo ñeel enquête pour faatu ko Aziz Dabala mu ne laa dikk sur les traces d'une exécution planifiée la nga xam te moom moo di ñaaw tef ki ña ko def daanaka dañu ko waajal ba mu mat sëkk moo di Abdou Aziz Dabala la principale cible moom nag dañu ko daal di ah, kàmbar fexe ba ñi nga xam te ñoom ñoo di ña fa nekkoon boole ko daal di koy boom mook ak ki nga xam te moom moo di waale di xaritam ba nga xamante ni ñoom la dëkkaloon juróom benn ci juróom ñaar yi nga xam te jàpp nañ ñi ñoom ñoo def jooju lay ñaawteef ñoom ñëpp fi mu toll nii teg nañu leen ah, loxo ak ñi nga xam ñoom ñoo di waa division des investigations criminelles ñoo daal di def lu ni mel gannaaw nag ba nga xam te jàpp nañ foofee ca Touba kii di Mamadou Lamine Diawo moom nag dafa daal di soppi ay kàddu yi nga xam te yëkkati woon nag mu ne nag moom je pas agi seul maanaam du moom kenn moo def li nga xam te ni moom moo di joow ju ak ñaawteef te ba nga xam te ñu ngi koy déglu foofee ci Touba dane nag moom kenn moo dem ci kër Aziz Dabala daal di koy faat waaye la xam te waxaat na ko l'enquête kat yi ca dig mooy am na ñoo xam ko jàppale ci mbir mi waaye nag moom mooy ki nga xam te moom moo def dëgg-dëgg ñaawteef googule journal bii di libération yéenikaay dikkaat na ci cëna mu gën a yaatu ak la nga xam te ni tey foofee moo nekk tolluwaaye boobu lépp enquête mu ne nag li nga xam te yëkkati na ko ci kàddu muy pendant qu'il pensait après après avoir déposé Aziz Dabala chez lui le téléphone de la scène de double homicide ki nga xamante moom moo di Naboulaye moom nag wax na ko enquête yi daal mooy ba nga xamante ne ni moom ànd daal di koy déposé ci këram moom dafa daal di dem nelaw te ñi nga xamante ñoom ñoo di l'enquête kat yi daal la nga xamante gis nañu ko daal mooy téléphone am jamono joojule mu ko ca doon jëfandikoo doon jokkoo ak ay nit waaye tamit ba nga xamante laaj nañ ko anañan la doon jokkoo la nga xamante xamle na ko daal mooy xamatul ña nga xamante ñoom la doon waxal téléphone ci jamono jooju